aywa mbokk yi xarit ñuy seetaan à travers Equivox TV ñu ngi leen di nuyu te di leen dalal tey nag euh, dañoo wàcc fii ci Sacré Cœur ngir jànkonteel ñi nga xam ne ñoo di askan wi ngir waxtaanee li coppateeg euh, monnaie bii di franc CFA en éco ndaxte nag ginnaaw ba kii di président Ouattara defee annonce bi coow li bëri na lool ku nekk yaa ngi ciy wax sa xalaat bu ko defee rek ngeen trop ma ñu daal di taataan kàddu askan wi. waaw avant tout maa ngi leen di saluer di saluer le peuple sénégalais di saluer le je m'appelle Lamine Diack un jeune bi nga xam ne ni peut-être euh, tey bu ñu ko intervenir ci affaire bi c'est tout à fait normal mu indi ci ay idéem tuuti ci lu mu si jot a xam du coup monnaie boobu ñu bëgg changer man je l'accepte à 100 pour cent parce que depuis lors boo xoolee en Afrique tey jii lan la ñu jiitoo ak ci traite négrière bu ñu paree ci traite négrière ñëw indil ñu ci colonisation tey boo xoolee pare nañ ci colonisation ñu ngi ñuy indil dans le domaine de la mondialisation kon tout le temps rek les tubaab sont favoris ci tous les facteurs qui peuvent définir un développement dans un pays surtout dans les pays africains tey jii ñun amuñu benn mbir boo xam ne ne mën nañ ko def vu leur monnaie ñun moo ñuy moo moo ñuy jiital ci lu ñuy dox buñ ci mën a sentir suñu bopp chaque jour les avantages ci seen côté rek lay nekk du coup foog ñu jéem a xool ay réformes yi nga xam ne ne war nañ ko mën a mettre en œuvre wala def en place mettre ko nga xam ne ne les intellectuels ou les économistes yi nga xam ne ne sont des africains naka la ñu mën a unir seen force bu ñu mën a am benn monnaie bu nga xam ne ni dans la avenir les jeunes yi nga xam ne ni ñoom la ñuy promouvoir dinañu mën a am ci lenn lu ñu basé wu pour mun a développer ce pays d' façon bi nga xam ne ni dina mën a gaaw ba pare mu am transparence am visibilité. Alassane Ouattara bu Côte d'Ivoire président Côte kon léegi nangu na kon léegi gis nañ njëriñu Afrique moom ba dama yaakaar moom dafa bañoon na ñun Afrique dañoo war a yàgg am suñu mone loolu mooy suñu intérêt. ñun du ñu topp français yi ñuy not suñuy maam yi jàpp suñuy maam yi def lu leen lu leen neex ñii ñu ñëw ray leen def leen lu leen neex ah ba pare ñun franc CFA bu ñuy yor di di leen ko utiliser mi CFA ñoom seen intérêt bopp la ñun lii suñu intérêt bopp ñun Afrique mooy ñu ànd nekk euh, get together nekk benn comprendre nga jàppante. suñu xaalis yi nekk benn suñu frontières yi ñu ibbi ko ku nekk sécurité di xool ki dugg ki génn suñu monnaie nekk benn bu ko defee africains yi kenn dootul sonn mais ñoom dañoo toppoon njëriñu français yi léegi nag xëy na dañoo dem ba si biir gis na africain yi seen jëm bopp ñoom ñoo fippal seen bopp parce que boo demee ba africain comme ñun di dem bi jël xaalis CFA bi di ko lakk am na lu ñu si gis mais comme que dem na ba fekk suñu pour ñu changer ko nañ si kontaan mais man pour man jàpp ne façon façon d'évaluation la quoi man man noonu laa ko jàppee quoi beneen système bu ñu génnee pour tuur nit ñi lëndëm rek. sama xalaat mooy ñu bañ ko changé changer lu man nit gis nag ni nga gisee xëy na peut-être ñoom ñi nga xam ne ce sont les leaders ah ñoom ñi nga xam ne ñooy leaders yi bu ñu demee ba gis ne dañ koy changé xëy na am na fu ñu ko sukkandiku pour wax ko loolu laa ci gis de mais man su su dee sama sama consentement bopp. kenn du ko changé parce que tour bi rek la ñuy changé toujours euh, euh, xaalis bi benn lay doon rek. bon sama jàngat mooy bon comme ñun presque tubaab yi li ñuy yoroon ñun ñun ñoo ko liggéey su ma eboo wax ne bon suñu liggéey moom mooy commencé feeñ ko liggéey nit ko ñuul parce que tey bu ñu ñëw dañuy nax quoi waaye CFA bi yàgg na fi lool depuis ay cinquante nangam ba léegi ñu ngi dawal. bon ku si nekk boo xoolee léegi CFA bi jëluñu ñu dara dévaluer neen ko ñëwaat encore mu gën a bon nit ñi dundatuñu normal xam nga waaye da ngay su weer day jotee sax boo jotee xaalis mu mel ni mu soo jot xaalis waaye da ngay génne léegi benn dix mille boo koy laal rek yàqu na pare na jeex na tàkk quoi waaye je crois que daal bon yal na nekk ngëneel si ñun rek ko ku si nekk gis sa bopp quoi ba pare aussi li ñuy wax nañ ko def ko ñu bañ ñu nax rek quoi. man daal li ma gis mooy que ne. Euh, base bi waratul nekk ci tubaab bi ci ñun la war a nekk ñun africains yi waaw foofu la foofu foofu la war a nekk quoi waaw ba tax na bon war nañu gis daal suñu bopp ci avancement bi daal war nañ ci gis suñu bopp mais tout le temps loo liggéey ci lay yem doo mën a investir dara gis nga affaire yi affaire bateau yeeg yooyu li ko waral yëpp nit ñi dañoo sonn te am na ñoo xam ne mënuñu tàllal loxo am na ñoo xamante ni mooy loolu xam nga ba tax na fi mu ne daal métti na daal méttiwaay bu méttiwaay bu jéggi dayoo sax. artifice yi ñoom ñoom ñoom ñoom seen gis-gis lañu am ñoom ñoom ñoom pour ñoom bu ñu changer euh, euh, euh, franc CFA bi def ko def ko en éco xëy na peut-être dañ ci gis avantage te xamuñu benn avantage nekko ci waaw tant que tant que tant que tant que l'Afrique restera l'Afrique l'Afrique sera toujours dominée par les Ah, mais xam nga bu njëkk euh, ñun CFA la ñu yoroon non mais CFA xam nga kooku français la mais français anglais mënuñu ànd 100 euh, pour cent ngay euh, français di nax anglais bi chaque jour léegi nag dafa nekk bu loo xamante ne bu nekkee na Afrique bu nekkee tey comme ça fu mu ne ni Bissau da see bokk xam nga Guinée Bissau Portugal moo ko colonisé non bu si bokkee Nigéria bokk si ah England moo ko moo ko moo ko colonisé Sénégal France non ah Sierra léegi nag ñooñu bu nekkee dañoo dem ba dem ba nangu ko ba bokk ko lu luñ jëy wax loolu mun ta nekk mun ta nekk ñun en tout cas nañ gëm ne suñu xaaya bi benn lay doon ñu ànd si ñun ñëpp comprendre nga gën a gëm suñu bopp wàññi suñu bopp si tubaab yi parce que instant yi comme ça lu mel ni Afrique yàlla da leen wan ndimbal si ñoom mu njëkk amuñ woon dara mais amoon nañ ko mais gisuñ ko woon fu ñu doon dem ñun ñëpp Europe lañ doon jéem di daw di dem léegi yàlla dimbale nañu ba ñun ñu ngi am ay ressources yoo xamante mu ngi ñëw di feeñ suñu biir pays léegi nag ñun nañ def comme ça ñun li bi defoon pourtant li bi dañoo amoon seen xaalis bopp ñu téye leen kenn du génn fenn du dem fenn ñiy liggéey seen bopp ba léegi loo bëggoon rek loo mujj dem li bi bu ñu demee ba gis ne Libye mu ngi riis chaque jour te tubaab ñu ngi gën a daan te ñoom ñoo dem am soxla si Libye borom Libye bañ dañoo fexe ba rey borom Libye ñun nañ nekk benn nekk gerte gi da xamante yooyu yëpp du am ñu am suñu monnaie bopp te suñuy frontière di liggéey ñu ne on ensemble comprendre nga jàppalante bu ko defee duñ si réccu dara. Ah, nag maintenant boo gisee lu baax lu nekk am na ñu mu arrangé wul parce que ñooñ di wax ñoom ñu génnee monnaie bi def ko éco arrangé wu leen ñoom franc CFA bi moo leen parce que ñoom ñoo français yi ñooy il faut ñu am noonu noon moom looy def lu baax il faut nga am ci noonu même yow mi sa journaliste bi mu ngi siy dugg am na ñu ne waroo ko def mais gëm-gëm la ko ak passion na yal nañ si yàlla jàppale rek. man li may wax ci loolu avant ñuy annoncer loolu dañu waroon dañ ko waroon a wane ne am na luy ñëw xam nga lu bees loo xam ne dañ ko bëgg a def ah bon xamal ko nit ñi ba leeral ko xam nga ñun suñu problème mooy lan Sénégal information du am ci côté état amul information du ñu leeral kenn xam nga ma mais am na ñoo xamante ni jànguñu am na ñoo xam ne du ñu lu rajo mais am na noo koy noo koy noo koy nooy nooy jàllale information bi ñëpp dinañ xam ne kat lii la bu fekkee ne arrangé ne leen ñu xam bu fekkee ne arrangé leen ñu xam mais ñun daal dañu teg rek. ñoom li ñu bëgg a def ñu def ko du ñu laaj sunu avis du ñu laaj kenn xam ne la bu du woon yéen ñi sax yéen journalistes yi ngeen di def déplacement di laaj nit ñi seen xalaat kon kenn du xam nu mu demee waaw de ce fait war changement daal dafa war a am waaw ci tous les côtés nag dafa war a am bu fekkee ne nag bon li ñu décidé ñoom bon am na ci avancement nañ ko gaaw a exploité parce que ba nit ñi gis seen bopp. parce que tubaab bi yàgg nañu nax c'est pas la première fois quoi bon suñu président yi boo xoolee ñun africains yi président yi moom. dafa mel ni ñoom ñoo nekk doomi président européen yi quoi waaw dañ ñu nax rek léegi bon buñ leen naxee ñoom président yi ñoom ñu ñëw nax ñu ñun quoi waaw ça veut dire ñoom dañ leen ñuy ñëw nax leen ñoom ñu ñëw lekk si ñun voilà li ñuy wax ni bon mun nañ ko def bon mu nekk vrai mun na bañ a nekk vrai ah si c'est ça et bon dañu am njot bu rafet rek. non xam nga mun a xam nga mbir bu jibee boo dee boo dee njiit ah bu ñu nee tel bul gaaw wax. parce que il faut nga xalaat ba xam ndax li ñu wax lu baax la wala leneen euh, baaxul ci nga door a wax parce que ki nga xam ne bu waxee rek ñu ne ah waxati na bon nag balaa muy wax dafa war a xalaat li muy wax muy lan waaw surtout étant président de la république ah qui a le euh, qui qui qui qui a le monopole de la parole avant qu'il parle il faut qu'il xaar xaar moo ba nit ñi wax ba pare mu door a wax luy xaleetam parce que bu waxee ah ne baax na mu ne voilà mu ne bon na bu ëllëg si biir conséquence bu ci ñëw mu ne ah moo ci d'accord donc il faut le consentement de la population d'abord la majorité mu door a il a le dernier mot. président africain yi soo buggee dëgg-dëgg tubaab bi ñoo leen moom quoi ñun mun lañu yëgal population yi ñu dëgg mais ñoom mun leen wax bu ngeen demee ne leen tekki na tey ñëpp noppi sëlëm ñu quoi. parce que bu nekkoon en réalité bu doon dëgg la vrai la sax ah kon ñoom génn nañ wax ci dara quoi muy président Macky Sall muy Ouattara ak keneen ak keneen waaw tous les présidents de l' Afrique de l'Ouest quoi xam nga c'est ça CEDEAO bi yëpp dañ ciy génn kon wax si bañ am yaakaar man de vraiment sekk man moom dama am njort bu rafet rek mais aw ma si yaakaar quoi waaye aw ma yaa ngi ni yaa ngi may interview yaa ngi nii takkaguñ la ba léegi parce que CFA bi baaxul waaw. c'est-à-dire li may wax sànq gis nga transparence boobu ak visibilité boobu noonu moo tënk lépp c'est-à-dire dañu war a mënuñu jëlagum dañuy war di jël ay décisions yi nga xam ne ne après a xam ne ni nit ci loolu la mën a tënk pour mën a def leur propre diagnostic ci loolu pour mën a xam ne ni est-ce que franc CFA bi dañoo changé plateforme bi rek wala est-ce que moo ñu tënk ba léegi c'est-à-dire yooyu c'est des c'est yi nga xam ne ni ñoom tubaab yi ko a te ñoo ngi xam ne ni que les Africains ils révolté parce que bëgg nañu indépendant ci mbir yëpp parce que depuis lors ba léegi colonisation bi la ñuy gën a sentir partout en Afrique nag du coup c' est des choses yi nga xam ne c' est un peu complexe ba nga xam ne ne nit peut-être pour mu am fa accès en tant que nous des citoyens simples yi nga xam ne ne sommes pas des responsables dans notre gouvernement ou bien mais on est des citoyens te on on on rêve d' être quelqu'un dans ce pays pour mën a euh, si suñuy contribution comme ni nga ko defee nii du coup des responsabilités pour gérer mbir boobu di ko doxal ensemble mais de vrai li nga wax ni ci lay tënk bu baax a baax a cent pour cent c'est-à-dire ces lobbies yi nga xam ne ne tey tubaab yi ñu ngi koy teg di ko mettre en place di ko def les africains yi nga xam ne ne tey ji leurs intérêts duñu xool intérêt commun intérêt personnel ba ñuy xool ñooñu foog ñu génne leen foog ñu wane leen foog ñu wane xam ne ne peuple Afrique bi foog ñu xam ne ñooñu sont des tricheurs ba nga xam ne dina am fenn leen canaliser changer benn état d'âme changer benn état d'esprit pour mun a développer ce continent. voilà ñoo ko gisandoo nag askan wi ñenn ñi ànd nañ ci ñeneen ñi ànduñ ci ndaxte dañoo gis ne rek dañuy tuur lëndëm kon nag nañ xool rek ba xam fii te di mujj ak i gëtëm.